te ci jamonoom nag xam-xam dafa bare ndax na mësul nangu mukk boroom xam-xam jël contact ak peuple bi moo ku ci ñëw rekk mu dugal ci pale bi ndax dafay ragal boo jëlee contact ak peuple bi yee leen te peuple bu yeewoo dootoo leen jariñoo ndax dañuy xam lu ñu war a nangook lu ñu warul nangu waaw loolu tax ma su ko nangu ñépp ci biir la leen di dugal ci biir pale bi te ku nekkit mu ni nanga nga jàngal Fira euh, Moussa ndax moo may doon te xamul sax lu xew xamul sax lu xew ñu di ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal ba ki ko doon jàngal ilmul xisaab li ngeen di wax mathématique di ko ko jàngal ba won ko ni ko baaraam yi ni mu demee bu demewul woon noonu doo mën a téye dara foofu la commencé di xalaat waaw xalaat ni kon am na beneen mathématicien boo xam ni moo yilif mathématicien yi ndax masul xalaat ni baaraam boobu njëriñ la am waaw defe nga ni yaa ko moom nu la neex rek nga jëfandikoo